waa ampleur a ngi noonu de Balla Gaye 2 doomu ndey Mathia ak Gris Bordeaux doomu ndeyam ndeysaan ñoom roy waay lañu mu ne ko roy waay lañu bëri nañu ba bàyyi bëri mu rafet waaw di bi nga de doomu ndey Omar a ngi nii ah ok laala buñ de. laala buñ de. voilà sant yàlla de. àddina amul solo. waaw xam nga. li ngeen ñun dañu fayam voilà. mais xam nga. boo ñëwee yow xanaa fayakoo. weer bi dee na.

ayca jërë ngeen jëf mbokk yi yaakaar naa ne lii ngeen gis noonu muy ndigal ak Mathieu ñoom ñooy def li nga xam ne mooy soowu Mia Guissé bi ak Wally Seck ñu def ko ci langue boo xam te ni langue bu extraordinaire la ñoom ñaar rek dañ ko déggoo duo bi boo xoolee macha allah duo bi neex na trop trop trop trop ngeen xool ko noonu yéen a ngi seen gis nga ko. yéen gis mayul dara ndigal ndigal tamit mayul dara Mathieu yéen ko gis noonu mu nekk duo boo xam te ni duo bu extraordinaire la ñoom bu koy def bàyyiwuñu ci dara comme dafa mel ni que mooy Mia ak ki nga xam ne moom moo di Wally muy duo bu neex a neex a a neex dégg nga ko muy duo boo xam te ni bu neex a neex a neex ba son bi boo ko déggee da ngay kontaan da ngay bëgg ñoom ñaar ni ñu koy defee ni ñuy defee ci bi lan moo tax sax ba léegi mënuñu bàyyi son bi daw muy affaire de droit d'auteur ak loolu noonu moo tax nanguñu ko mais Balla Gaye fi ne mi ngi reetaan mi ngi kontaan mi ngi bi sedd na dégg nga ko xool ñoom ñaar ñi ngi ambiance fi mu toll nii ñi ngi ambiance xool Balla Gaye fi mu ne xol bi sedd na mi ngi reetaan si ñoom ñaar ñoom ñaar rek dañ ko déggoo dañu dañ ko man dañu man son bi xool ko xoolal ndigal li muy def Balla Gaye xoolal xoolal métier <laughs> non xoolal dañoo dañoo dégg barke Sëriñ Tuubaa dañoo dégg dégg dégg xoolal ba ca xoolal ba ca xoolal ba digal xoolal ba xoolal ba <laughs> xoolal Balla Gaye bi ngi ree xoolal Balla Gaye bi ngi ree ndeysaan mu nekk loo xam te ni tamit déggal Balla Gaye gis nga ko bi ngi dem mi ngi feccaat ak ñoom gis nga ko gis ko gis ko gis nga gis nga ko mi ngi dem Omar <laughs> ah, waaw <laughs> gis nga la fleur gis nga ko bu nekk loo xam te ni ñoom ñaar ñoom dañuy ambiance xoolal ndigal xoolal ba macca ñoom ñaar ndeysaan ña ngay lëmbal ci xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal Balla Gaye gi ree ndeysaan xoolal xoolal xoolal rek mu mu nekk loo xam te ni dafa neex xoolal ñoom ñaar ñi ngi ambiance xoolal mais son bi bu buñ koy def dafay mel ni que da ngay gis caaju son bi quoi nee naa leen nag waal yi ak Mia bëgg naa ngeen woo leen ci duo bi ñoom ci lans bi ñoom daf ci bokk waal yi daf leen woo gis nga Omar mi ngi ambiance ñoonu ak ñoom yéen ko gis gis nga màcc fi war mais yaa noo gisee son bi. non son bi est très extraordinaire. clip bi bi nga koy tourné partition bi nga toll ak Wally Mia noo ko defee. waaw mais dama laa bëgg ñu yëg. yaa ngi ñu yëg seenu Mia Guissé ak Wally ñu woo ñu def suñu diwoo parce que diwoo bi mi ngi bëgg a war a àdduna nag ba tey woo wuñu. Ah. dañ ñoo war a woo bi dañ ñu woo. aw ma suwaa bi nga xam naa li may laaj. nga ma sàmm nag li eh. nga nabu jaaxle. nga bëgg lu yàlla mun na yéene. aw ma suwaa bi nga xam naa li may laaj. li nga nabu jaaxle. nga bëgg lu yàlla mun na yéene. Ay. xoolal sax ba nangu ci gàtt yi ñu ngi ay fecckat rek daal ñoom Balla Gaye la jël wala digal macha allah dawal na loolu voilà mu nekk lu gën a jeex rek seen am ni man koy def bu baax a baax a baax ñu ne man naa est quoi gis nga xool xool xool Bacir benn bàyyi si ñoom ñaar bi ñu dee diwoo son bi da koy faral di quoi da ngay ñëw ñëpp ñu leen di bàyyi xel ñu leen di bàyyi quoi